ñu ngi ziar bu baax a baax euh, sëñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak weer amiin amiin euh, sëñ Samad ñu ngi lay sant euh, di sant waa Muqaddimatul Xidma di sant waa Touba Xepp di sant waa Touba ca kanam ak ñëpp ñi jàpp ci liggéey boobu ñuy def ca bërëbu Baqiya mm-hmm. di la santit bu baax mm-hmm. ci yaatal googu sëñ Muntaxa woote te nga jëfe ko mhm. nde lii doo dootoon lu ñu programme mhm. ci biir waxtaan mhm. nga ñu yegge xibaar bi e, ca noona ni ñu koy waxee ñu taalibe du xaar ñu woo ko ca dara bu ci yégee rek war naa jël ñaqam def ca ñu amub yéene wax la ko ca saasa ngeen fexe yaatal ko Euh, la ñu ci jublu nag moo doon du lenn lu may yéene boobu ñu am mm-hmm. suñu mbokk taalibe yi nga xam ne mm-hmm. ñoom matale wuñu ko woon mm-hmm. wala euh, amoon nañu yéene yegsi wuñu ñu ànd ak ñoom mottal yéene boobu kon loolu dong la ñu ci jublu fasaale leen ci euh, kaddu yi ñu jël sax ñu ngi koy tuub boo ñu ci joxutoonu ndigalit duñu ko ca def waaye li ci ëpp solo mooy njëriñ li nga xam ne ndox mi am na ko ca bàqee googu mm-hmm. bu weesoo way dawlu yi mm-hmm. ñu dëkk foofu rek mm-hmm. jafe-jafe yi ñuy am maa ngi la koy wax ne la bu ñu jénnee ci lii danañ xool nu ñu mën a jaayantee ñu nit ba ndox ndox moomu ñu mën koo yaatal ba am ñeneen ñu ca mën a jot kon euh, ñu ngi sant bu baax ñu ngi leen di santit bu baax yéen ñi am yéene bi yéen Moukhaddamatoul Khidma ba boole ñu ci liggéeyu Cheikhul Khadim bi kon ñu ngi leen di sant bu baax eh, di ñaan dal ci réew mi di ñaan jàmm ci réew mi sëñ Mountakha Bachir yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér jërëjëf